yàgg comme ni ma leen koy waxee rek mu mel ni ki ah ñu ngi fi nga xam ne nii ba tey moom mooy biir Gambia bu ñu fi ñëwee nag defe naa ne làmb ji am na ñu koy way mais nag ki ñuy bëgg waxtaanal wala ñi ñu bëgg a leen bëgg a wan defe naa ne ñoom yàgg nañ leen di bëggal te dañ leen di bëggal lu bëri muy Mbaye ak Loum ak ñi muy àndal defe naa ñi comme li olof yi wax rek waaw maanaam loo gis lu ne mu yëngutu day am lu koy dooleel te defe naa bu doon Mbaye yàgg maar du ma ko yaakaar parce que saa yooye am na ñu koy aw soxna si maa ngi lay ziar. maa lay delloo ziar. tur bi nan la. dëkk fan. Yerwaago. Yerwaago waaw. ñuy jàppale mbay nga bokk defe naa si ñoo koy jàppale waaw. Uh-huh. Uh-huh. ànd bi nu mu demee neex na wala neexul. macha allah nit ku baax la te yaatu la. Mm. bëgg ñi àndal. di foo ñoom di kaf ak ñoom. Uh-huh. munoo xam ne mbay ak dafa mer. wax dëgg yàlla. dafa dafa wàcc ba maaseeg ñun bu ko neexoon mu aj boppam waaye defu ko dafa wàccee boppam macha allah. Fat Ndiaye wax ma jëlaat keneen parce que faw ma jël am ñu ma jël ci ñoom soxna si maa ngi lay ziar. delloo ziar bu xanaa da xiif. <laughs> gis nga ko de. Ah. moo sant mbaa santoo Ngom. da yàlla tere man Diouf laa sant. <laughs> waaw <laughs> déedéet xiifu ba de turi yàlla rek dama doon nelaw. Ah, waaw. waaye na am jàmm. waaw ñu ngi sant yàlla seen digganteeg mbayang rek ak way yeeg yooyu relation bi. waaw ah, yow foo dëkk. man Kër Farba laa dëkk. Kër Farba waaw waaw ñoo xam nga mbayang waaw xam naa ko bu baax. Mhm. xamewu ma ko dara nag lu dul rafet xol. yaru mhm. tabe mhm. am jàmm ak nit ñi. am yërëmande. wax dëgg yàlla dara boolewu ko doomu aadama. di ko ñaanal yàlla rek nag ca kaw ca kanam. ci darajay sëñ Babacar. yaay seen leader parce que nag ànd boo gis am na njiit. loolu moom suñu borom a ko dogal du mën a ñàkk boo déggee wax yi yow en tant que soxna bu ànd ak sa ay moroomu soxna looy yëg ci sa xol maa lay ziar. waa delloo ziar Babacar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ziare ñëpp ziare sénégalais yi ziare boo ko boolee muy sénégambi ziare ñëpp bége màggal ziare leen ziare waa Vox Arena bi nga nekk nii yàlla mu jig la yal na ngeen jigante daal toog mu ba mu doon télé waa ziare ñi ma àndal nii nag ziare ñi si des aussi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi si ginnaaw ziare di jégalu chaque jour rek comme ni ma koy waxee parce que tey bu ma sañoon indi ñëpp mais mënul nekk moo tax rek ma tànn ay quelque indi leen waa ñii lu ñu wax si ñoom la rek parce que benn lam du yëngu mbayang kese mënul bu ma demoon ci mbedd mi man kese jël rajo mu awul suma bopp kon nag lépp ñoom la rek ñoom ñoo gore rek parce que tey ku gore mooy gis mbaaxu nit mais chaque jour daal damay naan si ñoom la rek te yal na yàlla def aussi jubóo bi continuer ñu ñuy muñalante parce que ànd jigéen neexut waaw man nag nag neexuma deret mais dara ñoom comprendre nañ ma neexuma deret mais comprendre nañ te ànd moom dëgg rek dëgg moo ko waralal dëgg bu ko lalee rek du am ngistal parce que tey li ñuy wax fii du ngir sal dañ koy wax suma ginnaaw parce que damay toog ba nit ñi di ma koy jëwee naan sa groupe gi lu baax la ñuy wax si yow kon lu baax loolu yàlla na continuer na solo mais Mbayang waaw tey su ma continuer loolu nga wax leer na li ñu wax leer na mais mu mel ni Mbayang ci jamono yi passé dégg nañ ci ay xibaar sa euh, maanaam wéradi bu la daloon loolu Mbayang loo si mën a leeral sénégalais yi ak sa soppe yi. waa man dama feebaroon depuis le vingt quatre octobre tànk buy metti moom ma daanoon mu ngi nii sax waaw ngi nii def cicatrice benn picc bu ndaw rek la defoon continuer di metti mais nag alhamdulilahi rabbil alamin bi ma yaay ju baax juree samay mag samay rakk ñi nga xam ne ñoo suñu yaay ñaari yaay ñoo bokk ndey ak baay samay rakku yaay ak samay magu yaay seeni doom toppatoo ma samay mag yi ma bokkal ndey ak baay sama waa fans club ay nit ñu bëri ñoo xam ne aussi samay nit dañ ñoo xam ne ñii dañuy organiser ay lamb ma leen di woyal ku ko ku mel ni ñoom duut ñaan ñoom Abdoulaye Diop sum production ñoom Mbayang Fall ñooñu awma seen fay moo rakam Angèle Fall parce que dañ dajale xaas bu bëri jox leen ñi mun a ñëw hôpital ñëw fekk sama hôpital te boobu sax Angèle moom it weeru tànk bu métti la yoon mais gërëm naa leen bu baax a baax ñoom jamaïcain ñëpp parce que fii àdduna rek ku la defal da koy wax tey am na ku ñuy wax tonton Souleymane bu association Charité daa ñëw hôpital fekk jabaram am doom mu ñëw taseeg ñoom Ablaye Diop si bunt bi mu ne leen mbayang la ñuy seet si fii moo nekk fii daa bàyyi jabar ji foofu yeeg ba si kaw fi ma nekkoon boobu sax greffe nañ tànk bi ba pare boobu finition rek moo des mu yéeg ba si kaw yëkkati la mu am jox ma ko ak ñeneen ak ñeneen parce que munoo lim ñëpp mais man daal gërëm naa samay fan fans club li ma wooree ñoom la li ma su ren li ma wooree ñoom la li ma korité ñoom la li ma fajoo ñoom la mais nag yal na yàlla def jàmm def gudd fan ba ñu koy fayante si jàmm ak salaam man loolu rek laay ñaan parce que bu bu ñoom bu ñu fi nekku doon ak ñi nga xam ne bëgg nañ te yàlla tax parce que tamit àdduna boo nekk si ay jafe-jafe si ngay xam ñi bëgg te yàlla tax te ñii aussi dama doon engagé samay programme bi ma nekkee opital ñoom ñuy dem di woy ay ngente ay ceet ay mbapat lu ñu woy dañuy xaaj xaalis bi indil te laaju leen dërëm nag mais ñoom si seen xol si seen yërmande ñoom ñoo yekkati si xaaj xaalis bi indil ma te dégguma it kenn si ñoom ñaxtu si dégguma kenn si ñoom xultu si kon sant yàlla bu baax a baax a baax bi ñu demee ba wër ba yàlla dellu si waat ñu yàlla rek nag moo mën doo yàlla kese moo fi ne yàlla kese yàlla kot yàlla dong moom de moo fi ne da leneen jarul ragal suñ borom rek moo fi ne parce que metti woon na trop mais alhamdulilah. mais dégg nañ que ni affaire yi xam nga rek comme milieu bi ne nañ dafa xaw a doy waar mbayang lii bi mu arrivé lan la dañ ci xalaatoon ay def-def wala ay nangam sangam wala yu mel noonu. man xalaatuma def def parce que mbayan du ginaar ginaar rek lañuy jàpp def ko luñ ko mënul luñ ko warul def man doomu aadama laa yàlla moom ma sàkk yàlla bu la sàkkee dina sàkk ci yow feebar jiiñu ma nit tudd ma nit te du ma mos a jiiñ nit te du ma mos a tudd nit suñ borom rek moo fi ne mooy tege feebar mooy dindi feebar moom moo ma ko tegoon si kàttanam moo ko dindi aussi si kàttanam jiiñu benn doomu aadama parce que fii yàlla rek moo fi mun a teg nit ndatu mais du doomu aadama bu dee def-def nag bu dee nit moo xalaat def-def man de xalaatuma waxuma itamit ne nit moo ma def dama war a feebar feebar man sama wàll sama sama feebar yëpp tànk buy metti la parce que li dal lii dal na ma ma dem ma woy moom lambu jilaas lambu su lay sañ tabaski bor set boobu sax moo gën a metti te dama doon dem si làmb yi nit mënu koo xam xanaa nga taseeg man damay dem jël bidon aj si suma tànk tàllal ko toog jàpp suma rajo di woy parce que comme woy yi aussi suma natu la yàllaa ko def keneen defu ko munu ma si dara te nit ñi bëgg nañ ma si bu dee fukki nit sax bëgg di naka si bëgg nañ ma si kon munatuma koo bàyyi natu la si man lu mu metti metti rek damay dem mun a bës suma xol dama doon dem làmb ja bu ma demee mu mel ni dara méttiwu ma mais bu ma egsee benn jour ñii laa yoon ñuy dem xew dañ ne woon duñ dem parce que dañ maa xëppa ndox suma yaram yi di génne saxaar barke alxuraanu karim ak waxtu ji ñu ne duñ dem fekk ñu waroon dem caare si benn xew pour ñu yendu rek fekk siwaat ma si làmb ji mais dañ wax ne duñ dem mais nag suñ borom rek mooy teg feebar man sama feebar aussi tànk la tànk buy métti mais man aw ma beneen jafe-jafe mais tamit taxut may naan doomu aadama diw maa nii mbaa nee du yàlla ëllëg parce que bu ma dee man kese ak sama bàmmeel lu ma wax lu ma def moo may fekk te am na loo xam ne ragal naa ko kon du ma jiiñ nit yàlla la woon ba mu ko waree wéral wéral na ko. Mbayang fi may jeexale mooy sa diggante dama lay dégg ci say way ngay way mbër mu mel ni Modou ba di ko ba di ca boole nii man sax danga koy waxee neex na trop moom Modou moom sa relation ak moom moo ko Yaxya Jóob Yékini lan la surtout Modou Lo. waa relation bi sax man peut-être bi may woy mootloo boobu si télé rek laa koy gis si télé bi nii parce que man moom mbaru kii nii yàlla daa def Tyson kese moo mun a mus a nekk suma mbër si si ñuy bëre kii naka euh, bëre door yàlla def nag xam nga woy rek woy la rek woykat moom peut-être lii ñëw si sa xel mbaa li ngay jox pour nga exploiter ko day dem ba kawe sa njort parce que lii daa dem ba kawe suma njort parce que bi ma koy woy xalaatuma woon ne dinaa mos a toog sax ak Modou Lo mais yàlla def aussi mooy drapeau boobu duut ñaar di may tuddee deuxième deuxième édition bi si la yàlla def làmb ji tas rek mbayam fal woo ma si suba si ku ñàkk ki ñaan moom it parce que fii àdduna ñu lay defal rek del wax kenn du géwélu kenn man du ma géwél mais ku ma defal ku nekk dinaa tax wax ko moo ma woo ne ma woo naa jamaïcain li tax ma téye kooku aussi ba tey pour ñu dem kër Modou Lo mu ne ma préparé lundi ba ñu dem noonu lañ def dem lundi fekkuñ ko foofu ñu ne fekk daa jëkk jabaram ji daf fi ñëwoon mu dem foofu ñu yendu foofu ñu toog toog nañ ba ay vingt trois heures mu door a egsi xam nga affaire yi gars yi ñëw indi reer ñu toog ka foore noonu la demee relation bi aussi noonu la demee mu jël suma numéro su pot suma portable bindal ma si numéro am ne ma boo ma buggee woo nga woo ma te bu ma ko woowee aussi may woyu te bu ko neexoon loolu yëpp mun na ñàkk parce que woy kese la rek moom woy nañ ko fenn artiste bu ne woy na ko mais nag yàlla mooy booy boole ay doomu aadama Yékini aussi mbër la rek doon séeréer doon suñu mbokk waa te looy def tey rek da ngay jiital say mbokk balaa ñeneen di lay tagg say mbokk tagg la nit mbokkam séeréer nee na kii na te moom lañ amoon instant boobu te moom lañ am ba tey waaw. léegi man li ma lay ñaan mooy nga am loo ma tëjale rek ci Vox Arena ak Equivox yaag sa troupe bi may ma dara rek parce que tamit comme niñ koy waxee rek macha allah mais Mbaye dama la dégg sax nga ne doo géwél wala muy nuyu sama mbokku géwél yi. du ma géwél kay man ay géer sama papa woy fu mu jóge man ki ma jàngal woy du géwél Xadi Juuf du géwél moom ma jàngal ma doon woy si sama maam rek waaw. <laughs> waa defal waa Equivox ak Vox Arena dina ma neex. Vox Arena Babacar la yee gon la si ñeke. Vox Arena Babacar la yee gon si ñeke. Fox Arena Babacar Alaye Golasi Nyeke